waa kër parce que comme defe naa témoignage ni mu ko wonee som som laa dëkk di ko ta di nuyoo di associé sama bopp ci nuyoo yi fi am yi fi jëb yëpp yëpp waaw wax ju rafet ji yëpp yi ñu wax ci man euh, defe naa ne dama koy gën a rafetal parce que wax ji dafa rafet dafa neex waaye defe naa ne wax ji yéen yéen a ko mérité parce que xaw ma fu seen mbégte toll waaye defe naan tey maa leen gën a bég ah, parce que man su fekkente ne yow da nga am benn objectif nit ñi naan la baax na baaxul som dañ lay tàrrel duñ la tàrrel waaye tey jii seen taxawaay xam naa ne au moins tey jii gën na maa may force boo xamee ne ci li ma nekk dafa naan ne war naa ci mën a continuer bon dinaa jiital nag ci nuyoo bi du ku lim jum waaye nag directrice madame Dramé madame Dramé euh, bi ñu xamante defe naa ne jour bi ma nee jógee SNAPS di entraîné ci dimanche matin c'était un dimanche il toujours deux semaines jour pour jour presque ma ñëw ne ko maa ngi koy ma ñëw fii fekk ko fi ñu toog ñu présenté ma ko comme la directrice tey jii moom ni mu sonne ci som dama ko xool sama yaram di daw parce que aussi sonn na ci sonnaay boo xamee ne bëgg na réussir école bi boo xamee ne te madame Dramé juddoowu fi yarowu fi affectation ko fi indi mais vraiment loolu defe naa loolu rek war na tax ku ci nekk war ngaa jóg parce que defe naa nit jóge fa parce que aussi conscience professionnelle la rek waaw mooy li laam def en tant qu'enseignant mu indi fi vraiment euh, conscience professionnelle moo leen jàpp ba moom mii mu dem def fi ay saaku ciment ak yëpp ah parce que c'est une mu def loolu mais madame Dramé ñu ngi lay rassurer di la gërëm parce que li nga def suñu doom yi nga ko defal suñu doom yi nga ko defal sa volonté xam nañ ko sa mbëbër xam nañ ko yàlla na la yàlla accompagner te defe naa ne euh, ba nga réussir li nga bëgg waaw loolu moom mënuñu koon bañ wax kooku moom parce que euh, ku ñu fekk si la bi ñu nekkee ñun ñii duma leen gërëm parce que ñii ñoom samay xarit la ñu ñooy ànd ba ci suñu mag muy Abdou Dia ak Jules Dramé ñi nga xam ne ñooñu ñooy suñu kilifa waaw man Abdou Diak Jules euh, ñoom saa yu mooy taxawee ñoo ñuy magal te Abdou Diak li mu wax dafa du lu dëggu waaw ba ñu nekkee étudiant parce que fii li tax priorité bi ma def ma jox ko éducation bi fii ku fi arrivé rek man damaa moon chance bu peut-être que loo xam ne chance yàlla la. sama papa éducateur la bëgg jàng bëgg def dara. parce que ñu wax ko ci suuf ñu wax ko ci kaw dëkk bi sagam da am ay diplôme du chômé asamaan su fekkee amuloo ko jàng jàng li tubaab di wax c'est la mère des priorités adduna loo gis am na priorité dañ naan santé man santé laa def santé mais pour nga nekk un professeur d'université foo lan ngay def da ngay jàng donc jàng sax moo jiitu santé bi ma fi ñëwee keroog ñu ne ma euh, sixième ndaare ñoo nekk fii di doxantu amuñu salle de classe sama yaram daroon daw parce que école bi foo naa fi def naa fi lu oo école bi ci école yi dàqoon ci Thiès la bokk kër gi ay fleurs yu rafet fi nekkoon waaw ñun fekkee nañu lépp. jamonoy madame Ndaw jamonoy madame Ndaw jamono ñi fi jaar bari nañu mais lépp a ngi foon vraiment c'est école bu mignonne boo xam ne très yi bari ay fleurs fu nekk waaye tey bon malheureusement guddi na kenn. mais salle bi nekk ci gannaaw bi ma ko yërndoo keroog sama yaram da doon daw bon donc li li lii ñu def nii tey il faut que le euh, ñu recadrer tuuti rek euh, problème bi loin de mois li euh, maanaam sama xel nekkul sax ci kii état c'est que état dafay def rôle mais dëkk bi ku ci nekk xam ne ni mënuñoo xaar lépp ci état ku fi toog naa non non non lii état état mënul def lépp. état dina créer conditions yi wala dara mais aussi euh, ku ci nekk gox ba nga nekk soo ci dugalee sa loxo yan bi du diis dafay oyof ku ci nekk rek dugal sa loxo du euh, ñëpp dañuy joxe même somme non non non ku ci nekk rek yaa xam kii yeewu subax ñi sax ñëw di bale mi ngi dugal ci loxoom parce que ñëpp xam nañ luy cadre de vie ñi mënul ñi sori nañu yónnee tuuti euh, as tuut ñi fi nekk nañu def dara comme ni laam def nii. ñeneen ñi nga xam ne mënuñu ba mënuñu nañu yow yenn saa yi ñëw di bale loolu Île du cap gis naa ko fa gis naa ko Rwanda gis naa ko dara école yi maire yi dëkk ci koñ yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy defar donc lii du lu may tiitooro du dara ba dañ maa dafa am loo xam ne askanu euh, seen seen papa yi yéen ak sama papa moo ñu ko la moo moo ñu ko abal ñun dañ ko war a delloo suñu doom yi lii ma yore lii ku fi taxaw parce que y a une vingt y a une vingtaine d'années bi suñu papa yi dañuy sol ak suñu yaay dañu leen xamoon nañ dañuy dem dem nañu bàyyi ñoo euh, euh, alal bu alal bu diis parce que alal man man man man man maa ñeewul ay ku yore ay milliards man yoroo mu milliard musuma laal milliard mais yoro ñeew ma ko yore milliard parce que li ma soxla pour dund gu baax ak jàppale soxla yegg milliard waaw donc li ma soxla dëgg dëgg mooy naka la ñuy seetee pour développer ku ci nekk sa gox parce que ñi wax nañ ko waa Grand Thiès yi tey mais Grand Thiès soo leen seetloo li tax ñu bari doole ils très solidaires grand amul quatre ministres mooy régénération bi mais bu soo ko ñoom Serigne Diop ëpp na loolu Grand Thiès ministre dañ ko démystifier dañu démystifier ministre som ñun ñoo ñoo ñu li Abdou Diarra wax sax dëgg la li dafa yéex a am xam nga titre premier premier titre bi dëkk euh, dugg som PCA c'est parce que bon man dama leen koy ne dama leen koy jox mais vraiment som war na am ay kàngam yoo xam ne dañ fi jóge pour nekk ëllëg ay PCA ay ministre ay lépp te lépp ci lii lay commencé njàng mi tey jii priorité yi bari na loolu du ma ko wax ñëpp mais ci même koñ bi ci ruq bii ma toog am na yeneen carte yu ñëw ay affaire dimbali dimbali waaye da ngay seet priorité da nga koy da ngay seet bi la priorité des priorités parce que jumaa jaa ngi fii te ñëpp xam nañu war naa ci dóor sama jàkk ji laa bëgg wax jàkk ji laa bëgg wax ñoo ma jëkk a sollicité sax waaw mais dama dama ne jàkk ji xam nga tey jii saa yu yegsee baax na euh, dina dinañ la ñëw waaye lii tey jii si quelque jours su fekkee saafaruñ ko sacrifier nañ benn génération boo xam ne xëy na ay wéyu lañu doon waaw kooku c'est pour revenir toujours aux priorités lu soo amee juróomi soxla da koy seet bi bi ci nga xam ne soo ko deful boobu dina am euh, waaw bi gën dafa far donc foofu laa ko jëlee dinaa beral nuyoo nag waa bokk dëkk som yii borom ñi nga xam ne ñu bañ ko mun ñu bañ ko ñu bëgg ko tey ñoo ñoom ñi ñoo taaral bés bi